sëñ Thierno Diouf Lambaye mais booba bi muy ñëw kenn sax xamuñu lu ñu indi lekkati boobu lool la boobu sentir na ne mooy sëñ Fall yàgg fi loolu te wér sëñ abdu Fatah di suñu sëriñ di xaritam di léppam yàgg fi leer te ak njabootam yëpp nu ni taalibe ñu yàgg fi rek xéewal yi di gën a yokk ngeen di sañse ndax sëriñ suñu sëriñ choix la ci nun nun daal nañu yàlla suturaal rek ba bu ñu dégg ci dara lu mu naan ay cap yàlla dañu booleeg moom yàgg na semb la muy nit ku baax nit ku yàgg taxaw yàgg noo jàppale ci yu bëree bëri yàlla it dogal aussi ah waajuram di Serigne Abdou Fata euh, suma baay la mais wax naa sama baay la waaye sama xarit la di sama lépp di nit ku taxaw sama mbir nit ku ma jàppale teg ma foo xam ne tegu diggante waajur ak waajur ak doom la moom ñu koy ñaanal yàlla yàggal ko fi te may ko te may ko te gu yaram sëriñ ji li mi simit yàlla bàyyee fi vraiment parce que nit ku baax la nit la koo xam ne tey yoonu murit mën nañoo mën nañoo compter ci moom ndax am na jikko ju rafet ah vraiment loo ko seen muy dox rek jàppal na ci mbiru lu jëmale yoonu murit kanam ak mbiru Cheikh Amadou Bamba kon daal wax ji xam naa yàgg may ànd ak nag sama xarit yi directeur général de la loi lat lat Diop nga xam ne ma dama ko wax tey mu ñëw vraiment ànd gunge ma fii mu seet si mu seet seen jiri ci moom laa jóge nii léegi muy sama wëlëre ñëpp xam sama diggante ak moom mm-hmm. ah ma ànd ak sama chef de cabinet Djibi Diallo ah euh, Julde Ba également di sama euh, atta ci sama chef de protocole mm-hmm. Ibrahima Diop moom nekk sama attaché de cabinet mais nekk taalibe Serigne Djili mm-hmm. ànd ak ñoom Mouhamadou Bamba Amar ak ñoom Serigne Fallou ak euh, Mass Samb ñëw tey nag doon ziare si sëriñ bi ah, di ko jox wàccu waayam ah, di ko ñaanal rek ci màggal gi mm-hmm. eh, suñu borom bàyyi ko fi ba mu mën a nga xam ne liggéey bi nga xam ne soobal na ko maam mm-hmm. suñu borom may ko kattan bu mu ko àggale mm-hmm. tànk tey nag mooy ñëwoon ànd ak suñu xarit monsieur le ministre de l'industrie eh, ñëw ziar si eh, suñ ji bi moom ñu koy ñaanal yàlla mu yàgg fi ñu yàgg fee ñëw di ko ziar ñu ñaan yàlla yàlla yokk ay dara jàmm gën ko dëgëral moom njabootam yëpp ñëpp di fekke kenn bañ a loolu daal mooy tànk bis bi waaye ñu ngi santaat Serigne Touba waaw bu ñu boole. sama xarit la sama doomi baay la di sama lépp mu féete ma fépp ma féete ko fépp waaw di di di nuyu Lat Diop yi nga xamante ni Murid Saadix taalibu sëñ Touba am kër fii ci Touba di fi màggal waaye yitteem ak digganteem ak Cheikh Moussa mi moo tax bi muy ñëw fii mu ànd bu bàyyi gan ñaa yëpp ñëw fii waaye ni ñu koy màggale fii noonu la koy màggale këram waaw di nuyu nag Cheikh subaa ak délégation bi nga xam ñoom la àndal ñëpp di wax ne di ko sant bu baax ndax xam na ne ni xate xam na ne màggal gi ni mu xatee xam na ne barab yi war a dem yëpp waaye teewut lu mu xat xat xat xat fu mu duggee Touba fii lay fii si ci man kon nag loolu moom maa ngi koy sant di ko seedeel mbooleem ñi nga xam ñooy ñooy ñooy sama njaboot mbooleem samay taay di leen wax sama diggante ak moom ci ne moom de jàpp na ma lool te ni ñu jàppee noonu lañ ko jàppee te ñun suñu relation dafa nekk relation bu tubaab di wax relation bu profonde waaw maanaam déggante nit ko bokkal bàyyi moom man relation boobu la ñu dox man ak moom ci koo xam ne amul luñ du waxtaanee koo xam ne amul luñu du jëflante man ak moom kon nag bu ñëwee fii man naa ko sant man naa ko bañ sax ndax këram la ñëw ndax tey ñi may toogee di dalal gan ñi noonu la ma nañu toogee di dalal gan ñi ñu ah, sañ-sañ mam sama kër gi am na ko fi te loolu yàlla yàllaa dogaloo suñu diggante di ko sant rek bu di ko ñaanal bu baax yàlla suñu borom tabaaraka wa taala jàppale ko ci confiance bi nga xam ne moom la ko président de la république wóolu ba dénk ko li ko nekk yàlla def ko ci ndam di ko di ko di ko ñaanal bu baax di mission bi nga xamante ne bii moom lañ ko jox mu koy dox yàlla defal ko ci ndam moom mboolem collaborateur yi nga xam ne moom la àndal di ko sant bu baax seen Moussa di la wax ne wax dëgg maa ngi fàttaliwaat kóllëre gi bu baax di la gën a di gën a dénk président de la République Moussa ndax Moussa doom la ci kër gi fereer la ci kër gi kon nag président de la République mi ngi koy président Macky ndax xam nañ kóllëre gi nga xam am na ko ci kër gi démb tey kon nag ñun Moussa daal lañ fa kon ñu ngi koy dénk mu gën ñu ko téel xam ne lu ko defal rek ñun la ko defal lu ko sagalee ñun la ko sagal lu mu ko jàppalee ñun ñun waaw sëñ Lat meet maa ngi koy maa ngi maa ngi koy ñaaral moom it fii nga xam ne moom lañ ko dénk muy Lonase yàlla defal ko fa ndam ndax moom ab taali bi la boo xam te ni ñëpp rek ràññee nañ ko ci ko am njariñ koo xam ne day dimbali ñëpp dimbali nit koo xam ne ku engagement la ci président de la ñëpp xam nañ ko kon nag ñu ngi koy ñaaral moomit yàlla yëkkati ko te te te te te jàppale ko ba ndam lii nga xam ne moom la président dénk mu di ci am ndam di wax ne moom it ni mu wax ci Moustapha rek laay wax ñun président yi ñu ngi ko koy dénk moom it ndax ñun ñun amul lu dul Touba amul lu dul sëñ Touba te moom mi am na taxawaay bu rëy boo xam ne ñu koy def ci Touba di ko def ci njabootu Serigne Touba kon nag foofu laay maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala jëm boo xamante ne ci yoonu murit mën nañu wax ne moom moo ñu tarbiya moom moo ñu wan yoon teg ñu ci yoon te dañu liggéeyloo waaye saa su ne ñu ngi koy béggee bu baax te ñaan liggéey bu yàgg bu baax a baax ak yéen ñi nga xamante ne yéen it ñu ngi leen di saxoo bu baax di leen ndamoo ndax bu ngeen jógee ñëw ci kër gi bokk ak ñun ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ci wàll boobu yéen it sëñ bi ñu lay jaajëfal <laughs> mais añ bi moom xam nga sànq ba tey maa ngi insister si añ bi añ bi na neex de yow yaa seere waañ añ bi fii amul ceeb amul ceeb yàpp rek yàpp rek rek kon boog danaa lekk ba ba regg de naan lu set ah décher waaw comme baax léppay baax kon léppay baax suñu falu rek <laughs> maanaam màggal suñ tuwaa gi moom amaana ñëpp xam nañ ni mu demee léegi parce que borom bis bi moo ni li ma doon wut ngir li ma doon wut ci liggéeyal yonent bi ci bis bi la ma ko yàlla defal bis bu del seetee koo xam ne sëg mbég sama mbéga santale ma ci yàlla ci ba ci ganaar kon mooy lii ñu dellu santaat yàlla bu baax sant sëñ Touba Xaadimu sol di sant suñu wasiila sëñ ji limu sëñ Abdou Fatah Mbacke di ko ñaan suñu borom mu yàgg fi lool tëwee ci bàkki Cheikh Amadou Fadal bëgg a li maamu Cheikh Amadou Fadal suñu borom may ko ci kattan ak dooleeg biir ak biir ba mu mën a àggaleeg jàmm ci bàkki suñu Fall ñu ànd ko moom. gis nga macha allah ganaar yaa ngi nii gëléem yi daanu nañu. nag yi daanu nañu te ñu ngi incha <laughs> Kaolack Kaolack laa bàyyi ko waaw xam nga lu tax lu yëngu lu ne lu ko yëngal la ko ëpp doole Serigne Assane Fall Cheikh Assane Fall mu Serigne Jili Abdou Fatah ak soxnaam Roqee Dramé dafa million yi yu bëri jox ñu ñu ndugg nañu togg jox jaamu yàlla yi ñu lekk defar ba Serigne Touba bésu maamam bi waaw fa tubaar fa kàlla macha allah dara manqué wul. ndax li ma wax dama ne fàng ne tere takku may lu te dara duma ma ci bëgg a soxna Roqe Dramé nga nii. waaw ah, bis bi nag li ñu fi indi tey ku ne xam na ko ñun Serigne Touba rek moo ñu ñor kon moom lañ ñëw pour liggéeyal ko te màggal gi ku ne xam na ne bernde lañ ci wax jox jaamu yàlla yi ñu lekk ñun la ñuy dox te comme ñun suñ sang bi rek moo ñu ñor muy Cheikh Djili Abdou Fatah bon nuñ def ba këram ku fi ñëw doo xiif doo mar macha allah dibi yi la ñuy defar nii pour ndékki ak safaramaa yi. yooyu lañuy defar pour préparer ko nit ñi ndékki suñ ndékki ba pare ñu jublu ci añ bi di ñaanal nag suñu sang bi sëñ Jili Abdou Fatah yàlla yàggal ko fi te wéral ko di ci teg sëñ Cheikh Assane Fall mii sama borom kër nga xam ne doole yi jën ndox moo ma may doole ba tax ma ñëw nii di sant ñëpp nag ndax su ma jógee Saalum day yëngu ndax ku ne Cheikh Assane Fall ne Kaffrine ku ne dara Daraame ne Kaolack liñ nekk nekk bu buñ jógee ñun suñu askan ay yëngu ñëw topp ñu bon nag ñu ngi leen di ñaanal yéen ñii di leen sant ngeen ñu fiy fekk ay at yu bari ñu koy def ak yéen yéen ngeen toog ba ci ñi gën a kaw Hallelujah. maa ngi nuyu nag mbooleem ñi nga xam ne ñooy suivre site yi nga xam ne ñoo fi ñëw tey di am mbégte lool ci ñëw bi nga xam ne ñëw ngeen Ndindi ci fi ci bisub Sëriñ Tuubaa bi muy mbégte loolu rëccu xam nga ne maa tey xat na Ndindi it xaw naa xëcc waaye nag seenu cofeel ci noonu ak seen yitte ci noonu tax na lu nekk rek da ngeen ci wane seen yéene ci noonu waaw ñoo ko waxee rek ñu ngi nag tey jii ci li ñuy wax naan tey la tey mooy bis bi ñu doon séentu naa daanaka ay weer di ko waajal muy bis boo xam ne nag man li may wax rek toujours bis bis mooy bis bi gën a màgg ci noonu ndax bis la boo xamante ni bii ki nga xamante ni moom lañ yaakaar adduna ak alaxira mu gënal mu gënal ñu sunu alal gënal ñu sunu njaboot gënal ñu bopp muy Serigne Touba bis bii rek lañu la ñu digal ci ñu sant ñu defal ko def ñu santal ñu bii la ñu digal ci ñu am lu ñu ko ci defal te loolu du lenn lu dul sant ko suñu borom ndax ne ma waxoon ne képp koo xam ne bisu tey bi sama mbégte mooy sa mbégte bisu tey bii fu mu la fekk nang ma ci santale sama borom daal di wax nag sant daal nag taamu ci cant gi bernde ndax ma ne na ngeen ma ci santale sama borom ci ay werd ay alhamdulilah wala ak yeneen ak waaye daa taamu ne nañ nañ ci nañ ci nañ ci ber bernde daal di daal di wax ne di tàmbalee ci ganaar ba ci gërëm lu ci waaye man na ma defal ci bis bii loolu nag mu ëmb lu bare bare bari ndax Sëriñ Tuubaa Xaadimul Muxtaar euh, li tax mu ne sant gi do doyu ko moom rek digganteem ak borom donte dundam yëpp ci loolu la waaye nag mu ne ñi nga xam ne yéen a may safoo ma li ñëw leen ñu ànd sant leen suñu boroom bi ndax euh, li tax loolu it mooy dafa am loo xam ne ñu bari dañ ko bëggoon yàlla xëy xañ leen ko suñu borom bi may ko ko muy yoonu géej gi ndax yoonu géej gi ay dara ji da cee nekkoon ak ay ngëneel ak ay yëkkatiku yoo xam ne bii nitu yàlla yëpp ñëpp ko bëggoon ndax ñëpp a gisoon la ca nekk waaye ku ku yàlla wan la tax la ngay daj pour am ko nga deltu ginnaaw moo tax Serigne Touba bi muy toog di ko bi mu ko gisee di ñaan di ñaan di ñaan ba yàlla wax ko ne ko nag loolu nga doon ñaan may naa la ko waaye nag dangay génn Touba ci loolu la dem fii ñuy wax Mbacke Bari bis rek euh, ñu xëy maanaam li ñu wax ne. isa araada isa inama amru isa ara isa arada sayan bu yàlla nam ne dara rek day day day day da koy wuta xayan loolu asbab da koy wutal ay sabab looloo waral nag bi nga xamante ni bii nag eh, histoire bi romanda yi ci am ak jaxase yi yëpp parce que xam nga xam nga xam nga tu Sëriñ Tuuba eh, dafa arrangé wutoon ñu bari arrangé wutoon kilifa diine yi fi nekk ndax doomu soxna day xaw a fiir arrangé wutoon nasaraan yi nga xam ne ñoo ñoo yoroon colonisation bi yilif Sénégal yëpp ñëpp ragal leen ba jàppee leen daanaka yàlla yu ndaw te ñoom ñu jàngat ne sëriñ Touba képp koo xamante ni bi jéem ci moom rek dootoo faale tubaab tey dootoo gëm keneen ci kër kër sab sëriñ bàyyi ko fa ñëw siyaare Serigne Touba boo ñëwee toog bàyyi sab sëriñ léegi nag loolu daal di indi ak fiiraange loolu daal di indi li tubaab bi front ñu jëm ci mbokk yi nga xam ne ñoo bokkal diine bi ñu koy xeex ak nasaraan yi waaye nag lépp mi ngi cosaanoo faw rek mu am sabab bu tax mu mën a am yoon bu mën a génn pour liggéeyal liggéeyal ji liggéeyal ji suñu borom bi liggéeyal ji sangam mu teg ba yonent bi sallallahu alayhi wa ci noonu la la kalaame di am am di am di am ba yàlla dogal nag bu ñëw loolu histoire bi yoru géej def naa ñëpp dégg nañ waaye bi nga xamante ni bii tey maam Thierno yebal na ko maam Thierno ba mu demee ba ñëw ci la ci samedi boobu ci la suñu borom daal di koy wan ne ko li bis ni tey nag li nga doon ñaan am nga ko bis ni tey mooy natt bi tey lay tàmbali. bi moo tax bi maam Thierno jógee ci Touba di ñëw jóge Ndar di ñëw balaa muy agsi si fekk na sëriñ bi waaj ba noppi ndax xam na ne ci samedi bii ci lay war a génn këram pour dem nag euh, fas yéene saafo maanaam fas yéene affronté ak nattu bi nga xamante ni nattu yi nga xam ne suñu boobu nar na koo nattu ngir lii muy bëgg li mu bëgg mu mën ko am. moo tax mu ne xarajtu yow ma sappi saamina xasar li xidmatil muxtaaru fi saxri safar ci noonu la génnee ci këram bi ci Mbàkke Bari dem yoonu géej gudd na waaye ci résumé rek mooy euh, looloo tax bi mu demee ba ñëw jógewaat fa dem Murtani jógewaat fa ñëw Ceeñ jógewaat fa ñëw Njaareem euh, daal di daal di joxe ndigal nag ci ne nag bis bii nga xamante ni bii mooy sunu bo nattu bi mu dem lam fa daj lépp ñëpp xam nañ ko coono bu ne dañ ne ko fa natt bu ne teg nañ ko fa naqar wu ne teg nañ ko fa waaye mu xam ne lii mu bëgg pour mu am ko faaw rek mu daj lii dégg naa wax na ne maanaam bi mu demagu ci géej gi parce que sëñ nit ñi dañ ko yàgg bëgg yàgg yàgg ko yaakaar dafa meloon ne dafa yenu bool boo xam ne ndox ci ne jug ñu mar lool te bool bi ndox nekku ci waaye ab bool kese ci ne ñëpp dëngal ko yàkkamti mu ñëw bañ naan